ngir ñu bañ na rek waa laayaan ñu ngi xew déedéet dañuy màggal oote boo xam ne ki ko oote ba mu ko ootee borom dafa wax ne lii ma oote képp ku ko oote te yàlla yóndiw la ko di nga tàkk jëppét baa suuf lekk jëkk a mu ne lii ma oote céy koo ko oote te yàlla oote law lakk ren ba déwén di nga tàkk jëppët baa suuf lekk la ba mu yàgg ñu ne waaw ndax amaana ba maa di ñëwagul am na ñoo xam loolu di ko xaar yi ñu ne en Afrique noire les cas de mahdisme

يا معشر الإنس والجن sang bi nee na رسول aaya yi mu wax ne nañ ko jotal jaam yàlla yi uy si benn bi mooy bi ma ubbee uy leen oote bi yàlla ak yonentam uy si ngeen oote bi yàlla ak yonentam bàyyi lay waxul leneen du wàlliyu du xutbo dana inni rasulullahi ilaykum waxam dafa leer delloo ci gannaaw noonu yi song ka wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan mbokk yi jéem jël beneen bi mu ne min al mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira tubaab yi jéem ñoom ñëpp alku tey bàyyi lay des kon sunu toogee ba tey moo tax nee na jéggalul mi si xaar bu yàgg bi waaye yoolab tafsir ndikke yàlla na leen ko yàlla defal tafsir ndikke dafa xaar limaamu lu yàgg bi bàyyi lay ñëwee bi mu jébbaloo xam nga lan la ko wax mu ne ko limaamu ah yàggu yoon bàyyi lay naka tafsir yaa mën xaar mu ne ko bu dëkkee soppalaku naa lu ne ngir di la xaar waaye limaamu yaa yàggu yoon mu ne man lañu ñu woon almuntazar